لأنه للحدى والنور جرار asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki am média groupe Nour Darayni bokki taalibe yi bokki jullit yi ginnaaw bu ñu waxee alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa mawlana muhammadin al makin waa ala alihi wa sahbihi zawi ridwan wa tamkin noo ngi dikkaat ak ci sunu émission zaadu nisaa il muslimaati li nasihati l muminina wal muminaati doon jataay boo xam ne jataayu euh, soxna yi la waaye jataayu mboolem jullit ñi la képp ku suñu borom subhanahu wa taala namm ci sag jariñu doon jataay boo xam ne jataay bu laayanti biir la waaye jataay fàttalente la ngir li alquran karim wax ak li xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu di ko amali fii ci ëttub M Media Group Nourou Darayni di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mboolem lépp lun fi wax mboolem képp ku ko dégg suñ borom defal la ci ak jariñu àddina ak àllaaxira mu mel ni jataay la boo xam ne ñoo ngi ciy wax ak sunu bokki soxna yi waaye yemul ci sunu bokki soxna yi mboolem koo xam ne sunu boom subhanahu wa taala na ci sag moo xam góor la wala jigéen jotaay yi nga xam ne moo passé nag noo ngi doon waxtaan ak yéen ci téere bi Serigne Touba bi tudd soxna Penda Diop doon dénkaan boo xam ne Serigne Touba mi ngi ko doon dénk soxna Penda Diop doon wasiye boo xam ne mën na ne soxna Penda Diop la ko Serigne Touba dénkoon waaye nag yemul rekk ci soxna Penda Diop yemul rekk ci soxna yi sax waaye mboolem jullit ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi koo ca xam ne digg na ko tabàyyi ci xel mën nga cee jariñu àddina ak àllaaxira ñëw nañ ci ci yi passé ci dénkaan yi nga xam ne moom la sëriñ bi jëkk a dénk soxna Penda Diop ci ne maa ngi lay dénk nga muñ maa ngi lay dénk nga ragal yàlla maa ngi lay dénk itam ngay tuub ñëw nañ ci lan mooy muñ lenn ci lan mooy muñ lenn ci lan mooy ragal yàlla lenn ci lan mooy tuub jataay bi ñu mujjee yaakaar naa ñoo ngi taxawoon ci wàllu ak tawba muy tuub diggante jaam bi ak boroomam ndax jaam bi comme suñu boroom dafa sàkk jaam bi waaye nag mu sàkk ko muy def bàkkaar te bàkkaar yooyu mënul ñàkk ndax suñu boroom subhanahu wa taala wax na ne su ngeen nekkoon ci kaw suuf te du ngeen def bàkkaar dana leen fi jële indi ñeneen ñuy def bàkkaar di tuub di ma jéggulu ma leen di jéggal kon doomu aadama mënta ñàkk yi def bàkkaar waaye nag bu defee bàkkaar mu wëlbatiku tuub delluwaat ci boromam subhanahu wa taala ko boroom jéggalu jéggal ko waxoon nañ ci jataay yi nga xam ne moo paase dafa bokk ci turi suñ borom subhanahu wa taala alxafuur arrahim alxafuur nag buñ ko waxee mooy kiy jiggalaa kon bi te kiy jiggal mooy kiy tooñ lañuy jéggal waaye ku tooñut kenn du ko jéggalu ku tooñut du jéggalu kon turu suñ borom subhanahu wa taala yi nga xam ne moo di uh, alxafuur su fekkee ne jaam ñi dañoo ñëw ci kaw suuf te kenn ci ñoom du tooñ suñ borom ba koy jéggalu amul kenn kuy def bàkkaar kon mën nañ ne tur woowu dëgg dëgg dëgg maanaay tur woowa mën nañ ko bañ a xam wala mën naa bañ a feeñ waaye nag comme jaam ñi dañoo nekk ci kaw suuf di def bàkkaar waaye nag di jéggulu suñ borom subhanahu wa taala si borom mi nga xam ne mooy alxafuur di leen jéggal suñ borom mi nga xam ne mooy arrahim di leen yërëm kon loola loolu lu mënta ñàkk la ci jaam ñi waaye nag jaam bi bu defee bàkkaar rek mu tuub jéggulu boromam xam ne moom def na bàkkaar yëg ne def na bàkkaar ci boppam mu tuub jéggalu boromam waaye nag la ca la matam moytu mooy nga def bàkkaar xam bàkkaar bu ndaw la wala bàkkaar bu mag la te sax yëgu ne defu bàkkaar nekk ci sëg dund bu gën a dal loolu ëpp naa def ci ab jaam loolu moo tax jaam bi war di farlu bu baax a baax a baax di tuub di jéggalu boromam subhanahu wa taala ilayhi tubtu tawbatan nasuha min kulli ma faaltuhu xabiha bàkkaar yi nga xam ne yaa ngi koy def ci xool nga di ko def ci wax wala ci déglu wala sax ci xalaat lépp rek la war di jéggalu suñu borom subhanahu wa taala rawat na ci jamono ji nga xam ne def bàkkaar def bàkkaar yomb na lool waaye ñàkk def bàkkaar jafe na lool mucc ci def bàkkaar tam jafe na lool moo tax jàmm bi toujours rek muy faral di tuub di dellu ci boromam di ko jéggulu ci li nga xam ne moom lay xool te waru koo xool wala li nga xam ne moom lay wax te waru koo wax wala li xam ne moom lay jëf te waru koo jëf wala sax li nga xam ne moom lay xalaat te waru ko xalaat wajtani boo xawaatira diya wala simul xawaatira almardiya sëriñ bi dafa wax ne na sax di moytandiku xalaat yu suufa yi te ngeen di taxoo xalaat yi nga xam ne xalaat yu yu nu gërëm la xalaat yu suufay mooy xalaat boo xam ne yaa ngi koy xalaat ñi ko yëkkati ca kaw loolu mooy xalaat bu suufee xalaat yi nu gërëm mooy lépp loo xam ne yaa ngi koy xalaat te mën nga koo wax fu nekk foo ko wax rek ñu ne est loolu mooy xalaat yi nu gërëm yi kon mbokk yi sunu jataayu tey ginnaaw bi ñu dikkee ginnaaw bi ñu jàllee ci tuub ak la nga xam ne moo ci ajo mel ni tomb yi nga xam ne moom la sëriñ bi dénk soxna Penda Diop yépp rek benn boo ci jël rek mën na yaatu lool euh, kon tey jii insha la dañuy dikk ci beneen tomb mooy bi sëriñ bi dénkee soxna Penda Diop ci muñ dénk ko ragal yàlla dénk ko del tuub beneen bu mu ko dénkaan mooy duumi alal xumuli wa tasaturi wal tux fi di sawtaki dëhran tushkari ne ko yow yow yow soxna Penda Diop maa ngi lay dénk dénkitam ci ngay def luy wax alxumool te mooy di nëbbutu mooy di géem di suturaal sa bopp te ngay suufeele tam sa kàddu diirub jamono kon des na la gërëm doon loo xam ne lu jara bàyyi xel la dénkaane bi xañ ne sëñ bi daf koo dénk soxna Penda Diop waaye mbooleem jigéeni jullit ñi mbooleem góor ñi insha allahu taala képp ku ci képp ku ci bàyyi xel su bopp mën na ci defal ak jariñu àddina ak àllaaxira ndax lim koy lim koy li dénk soxna Penda Diop góor gu ci nekk itam am nga ci cër dama jële di bokke soxna yi waaye góor gu ci nekk rek am nga ci am nga ci ab cër kon wax ko ne ko duumi alal xumuli wa tasatturi wal dox bi di saw tekki dëhëran tushkar yi maa ngi lay dénk ci ngay nëbbutu mooy ngay sutural sa bopp waaye te ngay suufeel sa kàddu boolem jamono kon des na la sant doon lu jara bàyyi xel jamono ji nga xam ne na butu jafe na lool te it bëgg feeñ yomb na lool te it bari na lool ndax jigéen jigéen nag di nëbbutu ak di suturaal boppam ci ay wax yenam ak i jëfinam ak bépp barab boo xam ne amu fa ite loolu lu yell ci moom waaye nag lu jafe la lool ci jamono ji nga xam ne ñi ëpp ci suñu bokki soxna yi li nu bëgg li gën a bëgg mooy feeñ feeñ ci barab barab yi feeñukaay yépp nag ànd ak melokaan ba nga xam ne moom lañ fay feeñee te suñ boroom subhanahu wa taala waxoon na ci suratul ahzab wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula jigéen nag sañ naa génn doxi soxla soo xam ne soxla su ñor la waaye bu fekkee ne tabarruj rek moo ko tax di génn na toog këram te bañ a génn di def tabarruj comme ni nga xam ne jaahil yoon yo jaahiliya noonu lañ ko doon noonu lañ ko defee kon waxarna fi buyutikunna wala na tabarrujal jaahiliyati ula wa am sin li ajli xaajatel doonal ixtiyaal fal ixtiyaalu jaalibun ila nakaal saa boo jógee dox rek na la aajo aajo ju ajo ju ju ju itteel na la yëkkati waaye su fekkee ne la yëkkati lu ajo lu da ngay da ngay rek ngir ngir eh, def li wax al ixtiyaal te mooy wala nga def li ñuy wax at tabarruj nga xam ne benn itte boo xam ne moo la tax di joxe loolu da sol nga am loo sol bëgg ku la gis wala nga am looy doxee gis ku la bëgg ku la gis ak yeneen ak yeneen ak yeneen ya aju na loolu loolu moom bu naree am wa qarna fi buyutikunna wala tabar wala tabarrajna tabarrujal jahlati ula tabarruj nag am ci lu ci daje ci loo xam ne ay ay ay ay yoo xam ne yu bari la lool ndax bokk na ci tabarruj dafa am ay ayib yu mu làmbool bokk na ci tabarruj mooy yàlla la mooy yonent bi sallallahu alayhi wa te am na lu alquran waxoon ci ki mooy yàlla mooy yonentam sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci tabarruj ci bakkaar yi nga xam ne mooy bakkaar yi gën a rëy ci la bokk bokk na ci tabaruj melokaanu waa sawara bokk na ci tabaruj aw ñawteef la te am na lu ci alquran karim wax ci aw ñaawteef bokk na ci tabarruj day day xotti war day xotti worma bokk na ci tabarruj melokaanu iblis la bokk na ci tabarruj melokaanu yahuud yi la ak nasaraan yi kon tabarruj li ci li ci li ci làmboo ci ay ñawteef bari na lool bari na lool lool lool ay xam ne des na ñëw ci beneen beneen jataay gën koo yaatal waaye daal nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax kon duumi alal xumuudi wa tasaturi wal dax fi di sawtaki dëhran tushkari waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyatil uulaa wa si li ajli xaajatin doonal ixtiyaal fal ixtiyaal jaalibun la nakaal insha allahu taala beneen jataay wala jataay yii di ñëw dana ci ñëw gën koo yaatal bu baax a baax a baax melokaan yi nga xam ne moo aju ci tabarruj ak li nga xam ne digg digg digg boo ko defee ci tabarruj lañ koy boole ak nan la mën a alake jaam bi rawat na jigéen ji ci àddina ak alaxira insha allahu taala al karim jataay yi dikkale bu ko soo soobee suñu borom subhanahu wa taala des na ci ñëw kon dañuy taxawloo foofu ñaan suñu borom defal ak digg ak ak topp ci war seexna al xadim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ففي مساياه لا يرتاب وهو المتم ذوي الإسلام يوم عدا ميم بي كان للإسلام إظهار والله فرق بالفاروق سيدنا الحق من باطل أبدته فجار sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey